asalaamaaleykum mbokk internet ñu seetaan suñu ay différentes plateformes ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen waay toujours rek ñuy topp actualité toog koo xamante ni euh, vraiment ci li nga xamante ni moom moo xew ci réew mi euh, da ci am euh, wàll bu baax a baax muy Serigne Mbacké Serigne Mbacké bu Cheikh Amar Serigne Mbacké bu wa bu Balla Gaye numéro 2 ah Serigne Mbacké bu Pape Diouf ah génération consciente moom lañ toogal tey fas yéene waxtaan ak moom. Euh, tàmmul nag lu muy def ay sorti mais tey waxtaan bu ama am solo lañ nar a waxtaan te incha allahu rabbi euh, boo leen toogee scotché rek euh, xaar li nga xamante ni moom mooy émission bi di ngeen découvrir une personne boo xamante ni ma ngi def liggéey bu am solo ci réew mi mais bala ñoo sori dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog yéen ko internet yi ñu soog di tàmbali waxtaan bi sëñ Mbacké maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyoog mbokk internet yi. waaw Mass maa ngi lay fay bu baax a baax du nuyu waa àdduna rawatina waa Sénégal du nuyu ñëpp. di la jaajëfal yow encore une fois di jaajëfal euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, yor buumu jokkoo bi yow ku mel ni yow waaye du nuy bu baax a baax Maas du nuy Mbay waaye du nuy Mohamed di la jaajëfal euh, Gallo di ñaan yàlla sunu borom defal la jàmm defal ko ñëpp defal ko ñi nii seetaan yàlla defal nu ñu am nawetu jàmm ci barke Seydouna Mohamed du nuy bu baax a baax Cheikh Mouhamadal Basir Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg tàmm gu wér di nuyu Serigne Babacar Sy Mbaye Sy Mansour yàlla na fi yàgg tàmmagóor ak kilifa diine yëpp kilifa aada yëpp di ñaan yàlla sunu réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ci barke Serigne Touba. amiin amiin sëñ Mbacke yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp alors euh, waxtaan bi nañ koy tàmbalee nag mooy nga def une brève présentation de ta personne nga wax ñu kan mooy sëñ Mbacke euh, fan la juddoo fan la yaroo jaar-jaaram ñu résumé ko rek pour mën a xam exactement ki ñu toogal kan la. waaw sëñ Mbacke mindaafoon yàlla la comme ñëpp ndax yàlla moo ne wala xadd karab naa banne aadama lu ma bind rek doomu aadama moom ci gënal tey ban ma dalee laaj question ba tey mosuñu ma laajee fii ma tàmbalee ndax olof nee na lu waaye di wuyoo na ko nuru li ma njëkk laaj ne ma kan mooy sëñ Mbacke ak fan la soqi ak sëñ Mbacke mooy kan waaw damaa soqi koo ci askan wu baax sama baay juddu doon jullit doon ab taalibe waaye rawatina doon taalibe bi sëñ Mbacke Madina mi ma tuddee nekk nit ku baax. pikin gi laa juddoo. sanu kër ak kër Kiné Lam ñetti ñetti ñetti kër la woon ba ma juddoo sunu kër pikin mën naa ne kër Kiné Lam laa yaroo xam nga loolu du tey yàgg na sama papa nekk nit ku baax ñu koy wax mu di Diop waaye dem na ba turam boobu li ko xaw a nëbb tuuti mooy entreprise bi mu nekk nekkoon di fa liggéey ba retraité fa muy muy muy muy Nestlé Sénégal ñu koy wax jóop Machi ma yoroo ci keppaaram mu yar ma fi ma war a yare def ci man liwar war dugal ma ma jàng alxuraan dugal ma ma jàng école def ci man fulla def ci man fayda def ci man jom kon bu yàlla dogalee tey jii ma ci keppaaram moom sama waajur boobu yàlla na fi yàgg loolu te amug ma gis ko mu nekk jàmbaar yar ma ci liggéey lu ne jaay naa ko def naa marchand ambulant barke alxuraan billaahi wallaahi tabaski jot na ma dem jaay ji ay paakaaki jaasi bu été jotee ma dem jaay ji ay caleçon vêtement jaar naa foofu yëpp nawet jot ma dem jaayale ji sama yaay ay cuuraay rangoo ko. cuuraay billaay dem naa fii yi yenu naa bu ngoon jotee ma jël xoolite carottes yeeg yóbbu sunu waa kër xari pour ñu lekk loolu yëpp jaar naa ci. yàlla mi dara tawul di la dimbali di la dimbali ngay soox di soox ba suñu joon yàlla tey ji ma am tamit waay jur bu baax a baax bu jigéen. Cundemba Yacine Sagor Baba Yacine Sagor Alpha mi ci Balakoos man dama bokk ci famille yoo xamante ni famille riis lan fami yu baax ndax Malick Sarr cun sama maam moo dara woon na gaynde gi fàdd gaynde gi def une semaine mu mu mu génn àdduna ah, daa fàdd lu mu war a fàdd ñun pour ñun lu taxaw suñu kanam rek dañ lay fàdd waaye nag bu sooy waajur defee ci qualité yow yu baax yooyu nga màgg ñu tuddee la nit ku baax tur bu baax xamoo lu dul lu baax looloo ma topp tey ban ban lu baax rek laa xam. sëñ Mbacke bëgg baax. ñaata ñaata euh, Sénégal ñaata ñaata ñaata million d'habitants moo fi ne. na ñu foog naa ñëpp bëgg lu baax de waaye benn tur moo fi am boo nee sëñ Mbacke Diop teg ci. tur woo moo ma sonal. dàkkantal boobu moom ma sonal man lu baax lu ne maa nga ca. waaye fu ñuy waxee lu bon ak di ko fa yaakaare di ko fa wax du ma fa xand duma fa jege. xawuma ko. xam nga sama papa Diop Massi lañ koy wax imam bi nekk ak ñun sunu koñ maa ngi koy nuyu de passage imam Kebe dafa na ko yow de ñu ngi lay wax Diop Massi waaye sa tur woowu de dama ko bëgg a dàq sama papa na ko tur woowu daa yàgg de mu ne ko sama papa na ko noo may woowee mu ne ko Diop Pouso. Ah, day ñaw mu ne ko yow da ngay ñaw rek looloo ma topp na loo gis ci lu baax rek maa nga ca. waaye loo dégg safaan mën nga ma caa tudd mais ma ci. Hmm. du ragal de. dama ko jomba def ndax àdduna ñaar rek am def lu baax def lu bon jomba wax lu baax wala jomba wax lu bon mais man yu bari dama ko jomb ndax am na loo xamante ni tey boo toogee fii ma def ko bu ko sa déggee sa mbàpp bu ko déggee li muy njëkk a wax kooku de du sëñ Mbàkke ma ma xamoon lu baax la ma xamee lu baax laay dox lu baax laay wax ci lu baax rek laay dox loolu moo war a sëñ Mbàkke joo bëgg lu baax loolu moo waral sëñ Mbacke Diop dugg bëgg lu baax mais euh, bi nga defee yooyu yëpp nag ci jaar jaar yu métti yooyu yëpp parce que tamit am nga ci mérite ndax góor moom liggéey rek la war a def waaye dañoo dem ba seetlu ni ay célébrité ñu si bari da ngay ànd ak ñoom ñu si bari nga nekk seen ay homme de confiance mën nañ ci tudd euh, Pape Diouf d'abord sa diggante ak Pape Diouf naka la doore ndax Pikine ji nga wax yow moom tamit fa la juddoo d' abord euh, sa diggante ak Pape Diouf boo ñu si ñu soog di dem ci Cheikh Amar ak Balla sama diggante ak Pape Diouf mën naa ci wax lu yàgg lu lu sori loo xamante ni sax moom bu ko xoolee ay rey dana ko jaar Pape Diouf 2006 laa ko xam. 2006. coupe du monde 2006. 2006 laa xam Pape Diouf. je dama daan def ay jàng di def sant Serigne Touba chaque at Pape Diouf booba mi ngi dëkk Djily mbay comme xamuma woon bu baax nit ku baax la ñu bokk Serigne Touba. may wër di joxe ji ay soutien boobu Cheikh Diop moom moo ma doon jàngal ah ay ñoom Moussa Fall ñi ma àndaloon ndax man jàng naa xasaayit ànd ak waa kër Daouda Fall ba foofu tey tuddee nan ma fa doom man jóge fa di ànd ak Cheikh Diop Mbaye ndax Cheikh Diop sama ànd ak moom sax dafa jiitu suñu juddu ndax sama rakk bi topp ci man xaadim sama bi topp ci man xaadim euh, sunu benn baay bu baax bu ñuy wax baay Daouda Fall moo jàng ngénteem Balla Gueye mi sama ànd ak moom daa jiitu sama juddu ak man ndax daayira ba sama papa yoroon di tudd Kanzul Mouridina dubalees mi ñëwoon na bindu ci daayira ba sama papa nekkoon jëruñu daayira bi kon ñi ngi ma gis ma ànd ak ñëpp sama diggante ak ñoom man ak ñoom jiitu na suñu juddu yaa ngi may dégg Pape Diouf ma xamante ak moom 2006 ma ñëw di ko indil soutien mu génnoon bay door a ko fàtte mukk chaque jour ma nekk sama image ma ñëw di ko génne Xaadim Diouf dogaale ak man ne ma kan nga soxla ma ne ko Pape dama amoon ay jàng di ko ko tuddee Xaadim Diouf jël soutien bi noonu noonu nag ma bëgg Pape Diouf torop di ko topp di ko topp di ko topp ba moom benn bis mu ne kii di ma woo chaque jour duma ko wuyu xam nga rek te artiste xam nga ñu am na ñoo xamante ne ni duñ bëgg nga duggee leen noonu kii dinaa jéem a xool découvrir ko ban façon nit la ci la ma commencé di wuyu xam nga comme sama diggante Sédio Mbaye moom xamoon na ko ma commencé su ma fa demee di ko paas Sédio Mbaye su ma toogee nii ñuy dem euh, festival de la salam festival salam us Ndour doon organiser su ma demee toog. nekk ci ginnaaw Cheikh Mbaye da aw Pape Diouf di ma seetaan su ma dem léeg mu woo ma ne ma tey ñu ngi lay seetaan noonu noonu noonu bi mu demee ba xam ni kii ban façon nit la ci lan duggante nag man ak moom muy ku baax ñu bokk sëñ baax mu bokk ci maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam ak Gaawaan bàyyi sëñ Modou Mamour bàyyi sëñ Moustapha Ceytu waaye bàyyi sëñ Modou Roqee foofu lan foofu man Pape Diouf noonu lan demee ma nag moom ñu dem ak moom ba diggante bi nag yaatu na yaatu goo xamante ni macha allah su ma la ci doon wax euh, sax du mu fi jógee noonu la demee seen relation comme ni nga ko waxee fu ñu daan gis Pape Diouf dañ la gis wala tout le temps buy eh, way sa tur day jëp ci waay mi waaye dañoo gis ni Pape ñu mu daan àndal ñu si baari peut-être gisatuñ ko Papa Ndiaye Thioub gëj nañ gis mu ànd ak Pape yow mi aussi gëj nañ la gis nga ànd ak Pape c'est quoi le problème lan la ñàkk jot la wala da ngeen am bis bi yéen ñaar. non non non xam nga nag wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dan maa wax te waxam jotagul Pape maa ngi koy suivre maa ngi daje ak moom mais gëj naa dem ci ay événement ak këram ak këram vraiment gëj naa fa dem. amun benn problème nag. Ah. non ne léeg-léeg xam nga sa liggéey daf lay tënk. bay bari yoo xam dootoo ko mën. Hmm. loolu kese la loolu kese. mais dañ daan gis même loolu liggéey daan tënk-tënk tabaski maanaam bu daan jot. ngay jël sa njaboot ànd ak ñoom dem ziyaare ji. Hmm. ren gisuñu loolu. ren sama jabar tabaskeewu fi. Hmm. dafa accouché ji woon. barke alxuraan sama jabarta jabar tabaskiywu fi dafa accouché ji woon lii rek la. d'accord sa diggante ak Cheikh Amar Cheikh Amar ngeen ànd ànd bu yàgg ñu dem ba si digg bi ay dogal dab ko ñu koy masawaat bu baax a baax yeneen problème di am ay audio ay jabar fii indi fii am fii sa diggante ak Cheikh Amar naka la dooree. sama diggante ak Cheikh ni mu dooree yàlla dafa dogal ma xamanteek rakkam ji ne wax Kader Ndiaye muy taalibi Serigne Saliou Mbacké xam nga maa ngi la doon jàng. ma xamanteeg Kader ñu daje man ak moom ngéntal Marie Lo doomu Ismaïla Lo fekk présenté nan ma ko yàggul dara un mois ma ñëw ci ngéntal yi ma seen Kader ñu naan Kader Ndiaye ngi ñëw Pa Mansour moo ko wax mi nga ànd ak gorom bu ñuy wax Omar Traoré ancien joueur bu Sénégal ma ñëw ci siège bi ma toogoon ma jug ci jox ko Kader mu toog Kader ki mu àndal ne ko kii de booy bu baax la ndax lii mu def rek cër la bi mu ñëwee ci këram lu guddi gi la ma woo ma ñëw fa ñu toog waxtaan mu ne ma def naa la ma frère xam nga yàlla bi dogal di dogal di dogal di dogal di dogal léeg-léeg su ma ñëwee këram di ko seet léeg-léeg mu may jox rendez-vous pour may daje moom bundu kër Cheikh Amar benn jour ma ñëw fekk ko mu toog ak Cheikh Amar ci tunduraa bi ma ñëw nuyu ko nuyu grand bi Cheikh Amar jaar ci sama tournée ma sëñ Mbacke ma ne ko eh grand kon xam nga ma mu ne ma xam naa la de da ngaa jàpp ne xaw ma la rek mais xam naa la ma ànd ak fierté nag kontaan ndax xam nga tey nit ñu mel noonu. ñu ngi lay suivre fekk yow xamoo ne ñu ngi lay suivre bu nu jaaree sa tur nuyu la plaisir boobu ci nga xam cëru doomu aadama laa wax de day neex noonu nag noonu nag noonu nag ah comme na géwal laa ci ndey di géwal ci baay di géwal pire et dire drosine xam nga lan mooy drosine géwal wax lu baax xam lu baax te di ko jëfe géwal moomul kalan géwal moomul wax ju ñaaw gémul géwal munul lu dul lu baax rek bi ma gisee noonu wax dëgg yàlla nag ma fekk si fa ay nit ñu baax ñu xàllal ma ci sama digganteeg Cheikh bu génnee di dem fenn moo xam ngénte moo xam màggal moo xam lu mën a doon su dee wax ma koy jottaleel ay kàddoom moom Cheikh Amar Cheikh Amar toog nan ma toog sëñ Sidil Muxtaar toog mu wax ma jottalil ko Cheikh Amar toog nan Serigne seex mu Serigne Saali wax ma jottalil ko Cheikh Amar toog nañ àdduna bi yëpp di dégg ma defal ko appelu xel ko mam fële ca euh, xabaan Cheikh Amar toog nañ ma jottalil ko kàddu xel koom adduna bi yëpp di ko gis kon lu baax laa xamanteeg moom ci lu baax loolu ma dem ba Kader Ndiaye moomu yëkkati bee màkk may def sant Serigne Saliou Mbacke Sorano 2014 mu woo ma ne ma li ma defal tuddee ma ci sa bis bi ma wër télé yëpp ah may nuy may nuy di may nuy waa yëpp du nuy Pape Cheikh mu invité ma yeewu leen ma publicité fa jàngi Kader Ndiaye ne ma li ma defal ci dafa rëy ci man euh, lan lan nga jàpp ni man mën naa la ko defal ci sa bis boobu ma ne ko loo ma defal baax na mu tegal ma proposition ñett waaye bi ma waxee ba tudd bee màkk rek man ne ko jox ma bee màkk boobu mu ne ma pour lan ma ne ko damaa bëgg a yóbbu sama papa màkk 2014 ci laa njëkk a yóbbu sama papa màkk te loolu moo ko waral kon nag man rëccu ma li ma doon xamee Cheikh Amar ak képp kuy njabootam ci noonu ci noonu ci noonu dem na ba Cheikh Amar yéene ko gisal seen bopp lépp lu muy def lu ne ak di ko wax loo nit muy lu baax sëñ Mbàkke koy wax loolu sant yàlla la ma koy ñaanal yàlla ci daraje sëñ Saliou Mbàkke borom jàppandal xabbaan boroom njurul borom umul xaraa borom ñaari daaree ca ngaabu borom asaalixa maa ngi koy ñaanal daal yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ko te yàlla na yàlla kàttanal ko may nuyu ñi nga xamante ni ñooy ay famem ndax euh, Cheikh daf may def yenn façon yoo xamante ni ku lu wóolul ku nekk rek du la ko defal ndax olof mi ngi naan ku nu wóolu yow la ku nu wóolul yow la waaye ku nu wóolu ba wóolatul la yow a Cheikh Ama damaa yàgg di dox ay dox yu baax biir këram di ko fa wax di ko fa jëfee xanaa xam nga Cheikh Amar nekk naa ak nit dund ak moom bokkandoo moom benn banc école ñi dem ba ñoom ñaar seen diggante jaxasoo am si maa jubale Cheikh Amar ñi ma ko fekk loolu ñëpp ñoom ñëpp képp ku ci man amanteeg moom mal mal entendu man sëñ Mbàkke maay dox sama maay sol sama dàll di ci dox di ci dox ba lu baax amaat ci kon lu dul lu baax da koo gën loolu yëpp nag daje ma daje na ba naan ma sëñ Mbàkke joo bëgg lu baax ba tax na dinaa bref nii rek mais presse bi yëpp danaa leen joxaat dig daje def point de presse ndax weddi tuuma du ragal mais seetal sa la ah. taxawal foofu sa tànk <laughs> laa dégg de ce qui veut dire que am lu ñu lay tuumaal ci sa diggante ak Cheikh Amar dafa am loo def. waaw non xam nga xam nga olof dañuy seytaane waxul dëgg mais yàq nam xel. Ah. ku ne yàgg de fan yi passé déggoon nga coow la fa am. ci ay ñaari soxna yeeg yooyu ay gendarmerie dafaa ñëw ak yooyu. Ah. tey dinaa la wax benn wax lii sama oto la nekkoon mi ngi ma bàyyi ci station bi ñu koy raxas. waaw ah. lii lii la. xam nga léeg nii ñi dan naan na lii kaamil la fekk du kaamil couverture la rek man nag lii la moo koy ibbil baqara ba naasi kenn doy ma seede xam nga ku ma doy seede kii dama jàpp ba set julli tisbaar jullee gu ma tàkkusaan mais man sëñ Mbàkke yàlla moom laay jël seede su fekkee ni loolu ñi nga xamante ni dañ ne dama faa ñëw te ki ma wax loolu non dina xam ne di accuser nit ci réew mi c'est très dangereux waaye da ngay bàyyi ndax yoon noo dem ci moom ba pare di fajal sa bopp galo lu gën a rey accusation daa am ci loo fekkul yëgoo tinoo loolu moo tax may jël seede damay raxas sama oto de jël kaamel alxuraan bi dugal ko sama saak ndax kii fu ma jëm maay moom li tax nag man xam naa ko ndax ki léegi foogu mag laay ñëw di ziyaate fekk mu koy jàng ma ñëw ba mu yem ci benn aaya na ma yow santal yàlla man kaa la tax mu ne ma tiflil ma tifli mu jël lii jox ma ko su nekkul sama oto su may wàcc dinaa ko téye kii laay jël seede bu fekkee loolu man yëg naa ko bi muy am wala xam naa ci dara yàlla na ma sunu borom alak man du ma pion kenn kër Cheikh ma dama fa yàgg a jëf lu baax moom mu xam yim ma yàgg yónni yoo xamante ni ay vi privée la ba tey ba suba su ma doon dee dama koy yóbbaale nit du ko xam ndax nit kooku laa ñi may àndal ñëpp soo gisee ñu ñeme ma loolu la man damay dund li may dund ak yow ci fulla ci fayda ci respect munu ma ko am ku mën a doon kum mën a doon ma tegle la ne ñu seqaat jàmm nag waaye dootu maanaam am na loo xamante ni dootul man ak yow sama diggante man ak yow léegi nag ki nga xamante ni tey jii nee na moom dañ koo wax ne ko sëñ Mbàkke dafay juge loolu am kooku de bàyyi naa ko ak yàlla sunu borom waaye ki ma ko direct dinañ ko jëflante man ak moom ba mu xam ni man du ma du ma du ma du ma du ma du ma du ma juddu téeri du ma mbadaan daal ndax fii laa dëkk. waaw pour bu bu gendarmerie boobu noonu lan moo waral descente bi ndax dañ dañ dañoo jéññee sëñ Mbacke daa am lu mu fa def wala daa am lu mu fa wax wala lan la boo gendarmerie di fa ñëw bañ na si. non non non non xëy na rek maanaam dama fa ñëw ba génn dem am koo xamante ni xëy na bëggoon na am lu ko leer ba mu bëgg témoignage ànd ak gendarmerie dem fa. léegi nag kooku comme dañ maa xamee ak moom ñu ne dama faa ñëw ba génn gendarmerie ñëw xam nga li ma la te fekk man sama yoon néewu ci léegi nag dinaa ci doxee noo xamante ni kër goog yàlla na fa yàlla di def jàmm ak ñun ñëpp ba bu dama dara amatee dootu nu ma xalaat ma ndax man am na yoo maa ko mag mais alors kon yow loolu dafa am xel mu mu yàq ci kër ga ba am passage interdit wala kii la xamante ne la ko jiñ am ci wax xanaa déggoo li ma la kon maa ngi wax ak yow mais ma dama ni man bi ma fa ñëwee ba dem loolu am ndax yaa ngi may dégg ci ni wax ne man ba ma fa ñëwee ba dem la loolu am kooku ma ni bàyyi naa ko yàlla waaye ki ma woo moom ba wax ma ko man ak moom la. kan moo wax ne da nga ñëw ba dem fa loolu dëkkul ca kër ga de dëkkul ca kër ga de. Ah, leerul ci man te xam naa ne leerul ci boo ñu gënee mën a expliquer mais leer na ci ki ko def. Ah, mais mais xam nga ñun bu ñu bu ñu dee seetaan dañuy bëgg ñun suñu internet yi man ni may nekkee à l'aise di comprendre man li ngay wax. Hmm. ñoom aussi bu ñuy seetaan comprendre sëñ Mbacke li muy wax lan la. barke Seydouna Mohamed barke alquran. rawal damay rus nit mais du ma ragal nit. loolu yàlla def na ko ci man waaye dama ni la nit dul la waxal lenn li nga dem ci yoon di fajaatal sa bopp wala ngay wax day mel ni da ngaa tooñ ba tooñeer bi. kon da ngaa porte plainte lu tax. kon wax ji dafa mel ni na la. dina ma metti ndax loo waaye du wuyoo na ko nuru man sama image nit du ko yàq te nit mënu koo yàq Gallo est-ce xam nga ne tey bu ma la tooñoom nan nga maa boole ak adduna bi yëpp du ma saf déglu lii ma lay wax nag. su ma la tooñoon boole nga ma ak adduna bi yëpp du ma saf su ma la tooñoon tey kenn nga ma mën a booleel wala ñaar balaa ngay yegg ma woo la baalu la àq yow mi ma tooñ. sama papa ak sama yaay ndax ñooñu ñooy sama exemple waaye tey bu ma la tooñoon tey ngay wër ñu yàq sama der rek di di yàq sama maanaam di yàq sama der di wax lu ne du ma fere ga ñeente ndax amaana yow kooku nga may booleel man mën naa ko gën demeen mi ngi def man lu ma jomb ndax dégg nga ma kenn dong laa xam ni defu fi waxu fi lu ñaaw lu luñ koy xoolee muy sama papa ak sama yaay ñooñ doy nañ ma seede. Euh, Cheikh Amar kañ nga ko gëj a dégg. Cheikh Amar démb. dem laa gëj a dégg. moom wax ci mbirum plante yeeg la yooyu ñu la ji. xam nga nag moom kaay ma wax la nag ni ñu koy gis noonu commande la nag ndax dafa bari nit ñoo xamante ni dañ leen di tudd ci ay mbir di leen tooñ soo koy di ko wax lool danaan la Cheikh man am naa lu ma doy loolu mu ne mu ne ma sama yoon newuti te nit la koo xamante ni maa leen jox dig daje am na lu may préparé loo xamante ni defuma ko pour xaalis defuma ko pour dara man maa ko koy duppee. man projet bu ma bu ma nekkoon la ça fait mois ci ginnaaw sept dinaa ko def ini inauguré ko tuddee ko ko waaw moom moo ko ji dinaa la netteel benn Alioune Ndog Cheikh Amar nekk Allemagne màggal Touba jot mu tombé Covid billahi wallahi nee na mu toog moom xalaat yor xaalis foofu ñen ñooy ay nitam pour mu yónnee leen xaalis jàppale leen ci màggal seen Touba gi. barke sëñ Touba mu yónnee ma 2 millions Soukeyna Amar la ko ñu daje fii ci exclusif bi mu yëkkati jox ma waa li ma gën a fonkaatee Cheikh Amar te du ma ko fàtte ba ilaa yow mi diine may tudd sama doom kilifa yëpp toog Cheikh Amar ñëwagul mu woo ma téléphone ne ma heure bi waroon na ma faa fekk mais damaa nekk ci dentition bi ci dentiste bi sama dentition mooy metti su ma doon raam di ñëw sax danaa ñëw moo waral Cheikh Amar heure bii la ñëw sunu daanaka heure bi bi muy jot tuuti tàkkusaan la ñuy door a tudd sama doom te Cheikh Amar laa doon xaar cër la nag cër la nag cër la nag ba pare mu jël ma teg ma ci wetam lu muy wax ci lu baax mu wax ma jottalil ko yéen ñëpp ngeen gis kooku lan laa ko mën a fayee moo tax lu am ci biir këram mu may metti ndax damay xam ni moom yeewul loolu mais ñuy wax ne euh, sa diggante ak euh, ñaareelam bi je pense Adama la tudd. Ah. sa diggante dafa tax loolu ba nit ñi jàpp ni dangay ngay farak wala genre mbir yooyu loolu loo si tontu. su ma ko xamee Cheikh Amara tax barke Kaabatu Rasul Cheikh Amara woo ba ma ñëw mu ne ma dama am soxna soo xamante ne yow bëgg naa nga xamante ak moom nga ànd ak moom di ko jàppale ci sama liggéey ngay ànd ak moom di ko jàppale ci sama liggéey leer na woo ko téléphone paas ma ko. jël numéro am jox ma jël sam numéro jox jox ko waaye booba tey lépp lu Cheikh Amar di di def ci wàllu liggéeyam ma ànd ceeg ndaw si mais musunoo ànd wax lu ñaaw musunoo ànd defi lobby musunu ànd di def dara naka su sudul noonu lu dul liggéey bi ma Cheikh Amar sant ci moom te sax ajjuma ma julli jee jumaay Serigne Cheikh Saliou bi nekk biir Touba Almadi su ma fa génnee këram laay añi jee li ma xam ci moom muy ku baax mën a teral nit yàgg na ma teral taraanga bu ne lay def sama diggante man ak moom ñu ne déeta waaye mu ànd ak man ba padduwaa ci kër papaam mag yaayam présenté ma papaam ak yaayam waa léegi loolu ak fii mi toll nit bu jaxasoo ak yow yenn yi rek munoo lu du rafetal ndax àdduna loo gis ci nettali lay mujj relation boobu laa am moom relation bu laa am képp koo xamante ne yaa ngi ci keppaaru Cheikh Amar muy lu rafet. kon li ñu ci wax ay tuuma moo tax man la weddi tuuma du ragal mais seetal sa der la. lii dama ko bérefin nii rek waa léegi galo ah, suñu groupe organe de presse bi ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata kii moo fa nekk ñaata organe de presse. su ma fa dugaloon benn affiche rek ne sëñ Mbacke mooy woote organe mooy woote point de presse fii ni dina fi xaj. nan xaar loolu ku ne xam na ni. damaa nekk ci préparation combat Balla gay 2 tax na yu bari mu xaarandi te ku ne xam ne ni fan yee passé damaa amum damaa amum tu tout tànk ñu ne deetawaay mu judd ci jamonoy préparation zénith bi ma aj ngéntali bi ma ajee ngéntali combat Balla Gaye ñëwaat ndax Matar Diop suba teel mënul def dara ma koy booleeg dara ndax moment boobu maa ngi koy jàppale ci liggéey bi ci wàllu communication bi gis ngeen fi ñu doon dem yëpp ñooy ànd ma foofu maa ngi naan càpp naan di damay tudd waaye li ci neex du loolu am koo xamante ni jàpp na ni tudd naa bu yàgg xam nga lan la ma wax démb mu ne ma billaahi wallaahi barki seexul xadim xoola traiteur bi gën a mag man maa koy fay te fi may wax ak yow ma tudd turam kon man Sénégal man lan lan man lan laa leen deseel mais tudd nga ci koo xamante ni dafa nekk ci combat bu am solo bu muy préparé muy Balla Gaye Balla Gaye aussi ngay ànd ak moom dem naa ba di la gis sax ci ay préparation mystique am sëñ Mbacké man des fois dama naan sëñ Mbacké man ñaata métier la am parce que man benn combat gis naa ko moom Balla Gaye muy géral Balla gay mystique am bi nan la demee yow ba nga dem ba ànd ak Balla ba koy yoral ay cumikaay ak yooyu noonu. waaw fii ñu toog léegi fii ñu fii ñu toog léegi gisoo ma woo ma. su fii ci moom laa jëm déggoo ma ne la ku yow la. ku nu wóolul yow la waaye kunu wóolu ba wóolatul la yow damaa am ak ñoom affinité bu rafet macha allah je touche du bois mu nekk nit ku baax démb ñoo nekk ba minuit. tey jii maa ngi dem xaw ma kañ lay ñëw ca koo xamante ne ñu ne combat des na une semaine waaye léegi moom bu ma xamee woon lu ñaaw ak fi réew mi toll ak lu jëm ci wàllu làmb muy dute ak ñeneen yi li ñuy dute ci man moom dina ko dute ba di ma jël di ma teg ci wetam moo tax nit ñi nan xool. psychologiquement bu ñuy wax avant parler il faut réfléchir réew mii ñu ne man sëñ Mbacke dinaa fi dund ba dee kenn mënu kenn du ma fi waxal lu ñaaw déggu ma ne la du ma ko doxee du ma ko waxee te kaay ma xamal la de yàllaa ma suturaal ak sama liggéeyu ndey ak sama barke baay est-ce que xam nga ne ni damaa ne toog patt rek ndax olof nee na ku xam fukk bu la joxe juróom-ñeent da ngay téye noppi rek waaye xam nga ne manqué na ndëgg sërëxal bu nekk man dañ koy jéem ci man tax loolu baax. boo baaxee boo baax sonn boo baaxee rek sonn nit ñi dañoo bëgg toujours ca la na nekk muy cadre ba ne muy lu bon nga leen ci fekk si waaye man su ma bëggoon def lu bon du dem sama deret moo ma ko mayul waa léegi nan lan lan la sëñ Mbacké Diop bëgg lu baax ñu lay gis ci lu bon xanaa loolu mooy lancer film kaboy génn fusée euh, bu indo lu baax loo dégg maa ca waaye lu bon loo dégg bokkuma ca. bokkuma ci ay lobby bokkuma ci ay caaxaan bañ ñaa ko damaa ba damaa naqari deet moom kay dañuy mën a ànd ci ak njub ñu ànd mënuñu ko demal ma dem duma ma ferege ñeente ndax yàlla miy jox ñëpp mi ngi may jox maa ngi sant te yàlla day séddale ga nopp noppeegul Balla Gaye de ma koy ñaanal ci combat bi yàlla may ko ci ndam lu kawe ndam lu rëy rëy rëy ci diggante moo am di Moustapha ñu xam ko ci Tapha ci barke Serigne turu jàmbur bi ni loo ko am di am di Moustapha la tudd mooy am di Moustapha la tudd ah. noonu la tudd de mais lamb ji du yomb sëñ sëñ maa ngi lay la sa relation ak Balla naka la doore ba dem bay yor ay affaire ci mikaayam sama sama relation Balla euh, ak Balla Gaye démb rek ñi ngi toog di ko nettali man ak soxnaam buri ma koy nuyu di ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm saako ilimaan euh, moom Balla Gaye waaye di nuyu bu baax soxnaam buri bàcc li bàcc ba nekk nit ku baax da euh, waaw kom comme comme comme man ku ma ku ma xas ba miin man dootoo man ku ma xam dootoo ma baay sens boobu laa am boo ma xamee boo ma xamul na xamoo ma waaye boo demee ba xam ma ba miin ma di ma jàpp ndax lu baax looy woote lu ne wala lu baax looy def lu ne maa ngi ca biir wax naa la ko sànq dama fa daan ñëw yàlla dogal euh, ma fa daan ndax sumbulu sama xarit la ma sa nekk mu daan ñëw sama kër di may yendu sil may dem ci kër yaayam nekk nit yaayam nekk ku baax mère Gane Siri yàlla na yàlla oyofal ay ay yaxam sama diggante ak moom foofu la déparé ma ñëw ba fréquenté Balla gay a ah, comme nit la mii nga ak ay bëtam gis na waa léegi nit ku du daw di la wuy si nekk nit ku baax nga koy daw bi mu demee ba xam ma te yàgg nan man ak moom su daan ñëw mbapatu mbéy géey soixante-douze heures man Fass laa dëkk dama daan dem di ko seetaani ba muuma bu jawaay bi nga xamante ne mooy ànd ak moom muy Omar Fall mais dafa daan ñëw ma koy teel ci mukaay booba xale bu booba ay ay xale li ma leer nii ay ay deux mille deux mille sept deux mille huit jàpp deux loolu du tey léegi sama diggante man ak moom dem nañ ba relation am ci dem nañ ba ak mbokk am ci dem nañ ba ba ba lu ne am ci loolu la rek keneen ak keneen nañ noon rek waaw lii la rek. dafa nekk lamb bu capital ndax ñëpp nee nañ Balla yàqu na mënatul daan saako yi alors génn ci defet bu métti muy diggante mag Boy Niang war a ñëw jàkkaarloo ak Tapha Tine bi nga xam ne dynamique de victoire depuis 10 ans déggul mu ñëw depuis fukki at mu ngi daan rek war a dajeeg moom war ko may revanche ñu bëri dund te yow état d'esprit bi baa la nekk ak forme bi baa la nekk ndax yéen a ngi nekk comme ni nga koy waxee ban jugement nga ciy def. waaw jugement bi ma ciy def mooy combat bi li ko waroon lép moom mi ngi ko ciy def te def na ko ci sax la ndax 3 mois ku ko def INSEPS du ñaari fan bàyyi sa njaboot. bàyyi lépp wan ko ginnaaw dem ngir uti ji xam-xam ngir gën a uti ji maanaam doole pour ñëw jàpp tafaatin daan ko mi ngi ci bu baax mi ngi ci bu baax a baax ñi ngi ci bu baax a baax a baax a baax yendalutul fanaanatul ndax combat bu ne rek bëre na ko fi à l'âge de cinq ans nga dégg roi des arènes li benn waaye doon wax naan Balla Gaye lekk mbër rek la defalul waaye lu ne defal nanu ko nan ko ñaanal yàlla sunu borom bis bi mu jëm yàlla may ko ci ndam mais bu dee entraînement mi ngi ci lu mu mën a doon rek pour mën a gagné combat bi rek ñu ngi ci. Euh, santeem fan la toll parce que dañuy seetlu heure bu bëree boo amee défaite dinañ ni jeune bi lii euh, ndigg li lii affaire yooyu noonu est-ce que blessure yooyu noonu ñuy wax ci moom Balla instant yi ni ma ngi ci à 100 pour cent pour ëllëg bu leneen amee ñu bañ a fiyewu ci ay affaire de. waaw yàgg naa bële yàlla yàgg naa bëree blessure ba man sax dama ci daan merew ak moom. yàgg naa bëree Belchir après yow sax doo comprendre fekk boo doonee boroom jom doon gaynde rek doon ga gaynde waaye fii may waxeeg ak yow mi ngi sant yàlla macha allah xam nga nag tey la dimanche làmb ji des na une semaine ci diggante bi ñaanu na yàlla dara dal ko fi de waaye ba fii may waxee ak yow mi ngi sant yàlla mi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent bi vraiment mi ngi sant de mu ngi sant bu baax nag te na ko ñëpp gën a ñaanal rek ba tax na maa ngi ciy benn appel képp koo xamante ni yaa ngi nekk fant Balla Gaye ndax moom ñi ko bëgg te gisuñu ko moo ëpp fuuf ñi ko bëgg te ma leen di gis naka ñëpp ñaanal seen doom la na ko ñëpp ñaanal xam ni moom mooy neexal làmb na ko ñëpp ñaanal mu daan dimanche la 21 jël bu rëy ci kàttanu sunu borom. mais Tapha nit ñi bari nañ ko bu xeex ak Tapha Tine Tapha Tine dina ko wàcce euh, ban stratégie de combat ngeen nar a indi seen diggante ak Tapha Tine. waxuñu woon loolu bu njëkk ba. Balla Gaye du ma daan. waa bii nii lay demewaat Tapha daa mën a xeex mën naa dóor na taxaw ay na taxaw jàkkaarloog le lion di Guédiawaye am di waaye doo ma bàyyi loolu ay wax la rek bu ne la jaaral nii fa na ko góor du ne ma jaaral nii Seydina Omar non kooku yow xanaa nettalu na noonu histoire Seydina Omar ah. ci yonent bi sallallahu non kooku yow day moroomu kii te moom lañ ko tuddee direct te nee nañ turandoo buñ la ko tuddee nga jël ci moom. juróom-ñaari jikko juróom yëpp jël na ko ci turandoo. gis nan ngeen di def bàkku loo xam ne rotation bi Balla Gaye loo xam ne gëj nañ ko gis ci moom. ci répétition yi Balla Gaye di def ay rotation yu jéggi dayoo loolu lan ngeen ci bëgg a wane yéen. mooy wane ni Balla la ngeen nappee fi mu ne nii moom nappee ba dimaas yoo xam nga ne Balla bu bu bu génnee këram mu neex bu tuusee mu neex bu ñëwee ambiance mu neex bu bëree mu neex loolu rek la leen di indilaat xam nga moom keroog bi ma ko jëli jee ànd waa Albourakh Events mooy nuyu bu baax a baax sama frère Baye Ndiaye borom Albourakh production yàlla na yàlla defal ko jàmm làmb ji mu jublu yàlla defal ko ci lu kawe njortam di ko ñaanal magam ju baax ji Abdoul Aziz Alé Ndiaye waaye du nuyu bu baax Masata ale Ndiaye keroog bi nu jëli jee interview ma ànd ak moo Modou 4 heures du matin. Balla Gaye appel bi mu lancé woon boo doxee Guédiawaye li mu waxoon yëpp tàmbale nga koo gis dañuy marsa njaareem bàyyi laay amo fiij miij ñëpp na banderole yi Balla Gaye numéro 2 yi génn gars yi commencé nan ko ba tax na banderole yi fi ne nii waaw xaaral ma may la ci benn nga xool affiche su Balla gay 2 yaa ngi ni xoolal lii de la leen sant te ñu koy def but ba but nag géejaway gi yëpp ñi ngi préparé pour taxaw supporter seen doon doom mu mu jàpp am di mu safaa tafaatin jàpp ko daan kon ñi doon ñaan nanu ñaan na ñëpp ñëw ci combat boobu ñu ngi ci jox ñëpp dig daje. incha allah waaw xam naa balaa boobu incha allah dinañ defaat yeneen jotaay ndax lamb ji euh, semaine bi yëpp moom mooy nekk actualité incha allah rabbi alors ñu jaajëfal la parce que instant yi nii war nga dem ci rendez bi. Mm. bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk internet yi joxante waaw xanaa di gërëmaat yàlla bu baax a baax di sant samay ñaari waajur di santaat bu baax a baax nit ñi ma yàlla boole ñëpp. ki ma la wax ni sànq daf ni sama tudd bu soobee yàlla dina yëkk yëkkati teraanga gu tool noonu. te dana ma mooy loolu mooy première partie bi buggul ku ko tudd waaye maa ngi gërëm soxnaam bu baax ndax loolu yëpp bu amee soxnaam moo tax ndax dañ ne derrière grand il y a une na yàlla boole leen jokkale leen na asamaan ak suuf kon suma waa ji yow mi def loolu te yàgg def taraanga fii ci réew mi yàlla na sunu borom guddal sa fan te yàlla wéral la comme bëggoo ko la tudd du ma la tudd ndax nag nit buy def lu baax bëgg koo def ci suuf nan ko ko bàyyil rek na xam ne ab cëram la la laaj ndax cër na kenn du ko téye bu la ko joxee rek na nga ko delloo du nuyuwaat bu baax a baax encore une fois Cheikh Amar di ko ñaanal yàlla guddal fanam te yàlla wéral ko di ko ñaanal famille bi yëpp di ko ñaanal yàlla sunu borom yaayam ju baax ji yàlla na ko fi yàlla bàyyi bàyyi fi yaay yëpp ci na Cheikhouna Khadimul Moustapha encore une fois di gërëmaan ñëpp di ñaan yëpp ñëpp na ñëpp ñaanal Balla Gaye numéro 2 combat bi yàlla may ko ci ndam ci barke Sëñ Tuubaa ma lay gërëm bu baax Galo di gërëm bu baax Maas les parisiens la ñuy wax les parisiens waaw kon les parisiens waaw Mass mooy waaw waaw waaw di ñaanal Makhtar Diop suba teel ku ne xam ne li mu def. encore une fois loolu dama ciy ñëwaat. ndax euh, boobu ba tey sax am na ñu may wo bëgg di def ak man ay émission ci euh, xew-xew bu rëy bi nga xamante ni moom la def euh, ci le 29 bi passé fële ca Paris ànd ceeg Sidi Diop Makhtar Diop suba teel ñu ngi lay ñaanal yàlla sunu borom yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéral la. yal na yàlla defal la jàmm defal la ko defal ko mboolem jullit waaye defal ko staff suba teel yëpp soo limee euh, grand fall lim nga Assane loo ah lim nga DJ Yves lim nga ñëpp du nuy les jumeaux du nuy Demba waar du ñëpp ñi nga xamante ne ñoo jàppoon ci liggéey bi yàlla na yàlla sunu borom defal nu jàmm defal ko mboolem julit yàlla wàcc ci réew mi jàmm di ñaan yàlla sunu borom yàlla na fi yàlla wàcce ndoxum naataange ma di jox dig daje.